waaw xanaa di ci sant yàlla bu baax a baax euh, démb jot nañu euh, installé euh, comité bi ak madame la ministre tey madame la ministre ñëw gunge ñu tey ci signature bi ak suñu partenaires yi ñu am ci mbégte lool kon daanaka lii mooy nekkoon lancement coup d'envoi wu organisation officielle u forum mondial sur l'économie sociale et solidaire donc euh, nu mu leen ko waxee la wan démb rek c'est avec beaucoup de fierté que ñuy taxaw fii tey parce que ñun waa ville de Dakar forum bu mel noonu def ñuy may opportunité possibilité ñu mën a sargal doomu aadama mën a yëkkati doomu aadama mën a fonk doomu aadama économie sociale et solidaire dafa nekk levier buy bu ñuy may en tant que collectivité territoriale ñu mën a jàppale suñu askan surtout askan bi ngeen xam ne ni dañ ko exclure du système formel mooy de système bancaire ak ñoom seen ba ñu egsee ci mairie Dakar ba tey gis ngeen initiative bi ñu fi am moo xam euh, journée de la solidarité moo xam journée de la femme moo xam euh, lépp du ñu jagleel fii ay acteurs euh, de la jeunesse wala ay acteurs de la culture ak du tourisme loolu yëpp ndax mën fonk doomu aadama mën a sargal doomu adama te nu ko ma ko waxee woon ci tubaab rek mooy de ramener l'humain au cœur de nos politiques l'humain au cœur de nos urgences donc euh, lii daal wax dëgg yàlla mbégte la ci mairie de Dakar opportunité bu askanu Dakar euh, nor a saisir la te incha allah forum bu ñuy fas yéene am du premier au 6 mai 2023 mu noon a nekk forum bu ñuy fas yéene ànd si ak gouvernement du Sénégal ànd si avec tous les partenaires Euh, bilatéraux comme multilatéraux pour que mu mën a nekk ndam pour askanu Sénégal ak ndam pour Sénégal. thème bi lan nga ci yan nga ci wax thème bi jógee ci secteur informel dem ci secteur collectif. waaw mais euh, comme ni ma ko c'est euh, une opportunité bu ñu bu ñu am tey pour pouvoir permettre une fois de plus à la l'écrasante majorité des Sénégalais mooy lu may woowee les exclus du système formel parce que économie sociale et solidaire ñun dañ ciy judd. économie sociale et solidaire comme nu ma ko waxee woon démb suñ ko doon faram fàccee mooy nga am sa bayal ma am suma bos keneen am bosam ngay nga nga fa yor ay ginaar man suma bayal ma yor fa ay nen bayalu keneen ki mu fay béy euh, salade wala tomate ñuy jokkoo euh, loolu benn xeetu euh, forme d'économie sociale et solidaire la te je pense que tey moo xam biir Dakar moo xam biir Sénégal ñëpp xam nañ que l'écrasante majorité des Sénégalais en général nekk ñu dans un système formel tey soo demee tey banque dañ la fay laaj ay kayit yu nga xam ne ni la majorité des sénégalais yoruñu ko te ñun noonu tamit daan seen doole donc ñun tey suñu warugar mooy góor ba secteur informel boobu bu ñuy wax secteur informel mu mën a nekk secteur buy gis boppam ci l'action municipale mais comme l'action gouvernementale donc di ci sant yàlla bu baax a baax